sur motion de censure bi dafa bokk ci li nga xam ni warta mën a ñàkk luy warta mën a ñàkk bu ngeen xoolee réew mi fi mu jógee ba dal si fii ñu tëb ñëw rekk ci dimension wu euh, déclaration de politique générale bi nga xam ni daf di li nga xam ni constitution bi moo ko fi teg ay nit pour des raisons politicienne bi nga xam ni ñoom seen ay bugg-bugg rek la doon topp di foye li nga xam ni ñun ñëpp daf ñu tënk muy constitution ba fexe ba di wax di jaxase ba indi fii que loolu amul ñu dugg ci règlement intérieur bi làqatu ci gannaaw ñu defaral leen ko ba reglement intérieur bi tëdd fi mu war a tëdd nga xam ni tey respecter constitution bi moo fi des ñu teg ko ci ay kasaw kasaw di wax ay cinquante 54 pour cent dañu war a tas lii dañu war a tas lii bu dugg ci nag léegi ni pour respecter engagement yi ñu jëloon ci kanamu askan wi dañuy tas conseil économique et social dañuy tas au conseil des collectivités territoriales te fekk na ñoom liñ fi diggee loolu benn rek la ci yanaa au moins sooy listé ay 10 15 engagements yi nga xam ni jël nañ ko yi nga xam ne respecté wuñ ci benn du lu nu war a wax wax ko du war a def def ko du nu war a bàyyi bàyyi ko dara lañ ci deful ñu ñëw ba loolu lajj nag léegi il est question ku ñu dellu soir woon leen ni ñoom rek amuñu pexe su fekkee dañu jubal ci ni oui ñoom dañuy tas assemblée bi parce que nekku ñu majorité te seen 54 pour cent moo leen war a assurer majorité mais ñeneen yi dañ leen woon ni pexe pour pexe gite am nañu possibilité def ay calcul politicien yu ñu yóbbu ba ci ñu ni dañuy daaneel gouvernement bi ça de soi ça de soi et c'est mbirum mbirum bi man damay détail yu fee yi ñu ñëpp jaar nañ ci mais damay revenir toujours ci li nga xam ni moom moo waroon tënk ñi mooy seen engagement par rapport ak askan wi ak lépp li nga xam ni wax nañ ko fii ci réew mi ba tax nit ñi fal leen waruñu woon permettre lii di leen dal ñu dem banaan dafa am déggoo yu dëng yi nga xam ni seen ministre ci boppam def na ko wër comment dirais-je encore directeur ONAS bi ñu dàq ko moom ci boppam ba noppi ñu lëkkaloo ak ministre bu ko fi téye loolu day wone jusqu'à quel point réew mi dafa nekk en danger il faut que lii mu génn je suis solidaire ci ñëpp ñi nga xam ni dañu taxaw ni Cheikh Tidiane Dièye non seulement mbir mi dafa war a leer mais Cheikh Tidiane Dièye dañ ko war a démettre immédiatement su fekkee ñoom seen der soxlaal na leen mais nag dafa am lenn lu nekk ci ñii ni conglomérat wu ay nit la ñu mbootaayu nit la yi nga xam ne dafa mel ni ku nekk danga nga cotiser lu la téye ci fi nga nekk Cheikh Tidiane Dièye dafa mel ni li mu nekk ministre du volonté wu président la République du volonté wu euh, Ousmane Sonko moom moo cotiser lu war a tax par force day nekk ministre moom moo cotiser lu war a tax lu ay mënti doon jusqu'à ce que soit impossible dañ koy protéger tout le temps loolu moo ko fi téye mais scandale tollul nii te ministre jógeen fi la pour le même scandale on le directeur général de de de de de l'ONAS moom fi des. man coalition Benno Bokk Yaakaar terme la bi nga xam ni presque dafa désuet léegi bokkatul loolu man ci sama dégg-dégg parce que dañu dugg ci beneen épisode dundu politique gu Sénégal bi nga xam ni dootul dootul euh, ci épreuve yi ñu jëm ci kanam dootul parti conventionnel yi. ak groupe conventionnel yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition yi quelles que soient les coalitions Benno Bokk Yaakaar Yewwi tout cela du foofu la ñuy war a taxaw pour redessiner waat paysage politique bi boo remarqué dañ doon jéem a wax ni oh waa Pastef de amuñu opposition fekk na tey nag la ñu mës a am opposition parce que li leen opposé ba ñu tiit ba jaaxle ba di dugg ci lu nekk mooy lii nga xam ni dañ ko tuddee vaar bi te vaar bi vaar bi du ay machine yuy dox di wax c'est une partie du peuple sénégalais yu gis ni ñii kat li ñu waxoon defuñu ko ñu gis ni ñii kat danoo war askan wi ñu taxaw di riposte ci loolu ñu gis ni ñii seen xar kanam ndekete xar kanam ñu dul wax dëgg la ñu taxaw di riposte indi beneen forme d' opposition bi nga xam ni acteurs yooyu ci opposition bi la ñu bokk. donc suñuy waxaat naan dañuy recomposer Benno Bokk Yaakaar et consort la réalité politique bi ñu jàkkaar loolu mooy nan fi indi li nga xam ni de manière effective mën na jàkkaarlook Pastef daan Pastef. te loolu du ay question wu Macky nee na ñu def nii wala nële dañuy déglu Macky fi mu toll ci wax nañu recomposer mais nañu xool réalité ñu dugal ko ci biir d'autant que danga nga jàkkaarloo ki nga xam ni tàmm na manipuler ba noppi moom moo yor pouvoir bi actuellement donc il faut lui opposer une force réelle quel que soit ni mu mën a tudd nga dugal ci lépp li nga xam ni comme bagage mën na ko euh, contrer nga dugal ci lépp li nga xam ni comme acteur politique mën na ko contrer je crois que boobu enjeu mais loolu man li ci sama xalaat lu simple la waruñu bàyyi mu jàll parce que Cheikh Tidiane Cheikh Oumar euh, Diagne dafa fi indi benn façon wu sañ bi nga xam ni kenn xamul lan la ci histoire u Sénégal mësta am benn nit bi nga xam ne dafa porté porteel boppam moom kot comme su fekkoon il était solitaire dans cet engagement là xeex tarixa yi léegi li ñu doon wax yëpp ay Pastef si dafa mel ni moom moo endossé loolu yëpp kon kii dañu war a jàkkaarlook moom dañu war jàkkaarlook moom appeler en responsabilité ñi nga xam ni léegi dañ ko placer ci dispositif bi nga xam ne dafa bokk ci ñu yore nguur gi mooy ministre chargé des des comment dire encore non pas des affaires religieuses et des euh, am na tour daal bu ñu koy wax ci présidence de la république chargé des affaires générales ou quelque soit mooy ministre bi nga xam ni jumtukaay yi nekk présidence moom moo koy gérer. à ce titre là lépp li nga xam ne dafa jóge ci moom jëm ci askan wi la mu jëm ci benn corporation jëm ci euh, tarixa yi dafay li nga xam ni day taqalaale ñi nga xam ne ñoo yore réew mi dispositif bi yore réew mi su fekkee des na foofu ba noppi nag léegi malgré cela muy def li muy def te kenn waxul ci ko boobu côté loolu day tey xel est-ce que moom li nga xam ni moom la ñu gisoon ci Pastef dans le temps ci xeex Euh, tarixa yi est-ce que fi ñu toll tey puisque Pastef dafa sol mbubb ko yore réew mi actuellement est-ce que moom desul endossé boobu mission ak kan moo tax mu koy endossé ak lan moo tax mu koy endossé xaalis la walla gëm-gëm la walla ay compromission la ak yeneen organisation yu nekk bitim réew on ne sait pas mais li ñu am comme responsabilité mooy ñu jàkkaarloo moom tere ko ba noppi appeler en responsabilité ñi nga xam ni ñoo yor réew mi ni yor réew mi ak lii euh, Cheikh Omar Diagne di def mënta ànd munta ànd nga nekk ci ñi yore bopp réew mi doxal ci réew mi ba noppi nag léegi yow ngay de ngay ngay ngay comporté wu ci li nga xam ni état bi daf ko war état bi mooy tutelu confrérie yi parce que état bi moo yore réew mi dafa am ay responsabilité par rapport ak li nga xam ni moom mooy confrérie yi kon ku nekk ci biir loolu war warta mën a taxaw di sànne ay baat di wax li nga xam ni jaaduwul ci confrérie yi ba noppi ñu bàyyi ko suñ ko bàyyee continuer noonu rek dañ ciy am responsabilité ñoom waaw question boobu ay question yu récurrente la kenn mënu ko expliquer ci ay lii mooy sama xalaat lii mooy sama xalaat comme quoi li ñuy wax naan lan moo koy faj phénomène la bi nga xam ni réew mi dafa toll fi nga xam ni day dafa am ay soppeeku yu fi nekk ci biir nit ñi benn nit bu nekk dafa am lu soppeeku ci sa biir mais environnement yi fi ñuy dundee dafa am lu fa soppeeku ci fi nga xam ni moom la nit ñiy doxale ak li ñuy ragal ak lu ñu ñeme dafa am lu fa soppeeku loolu moo nu topp depuis des années mu ngi progressé ba jur situation bi surtout nag su ñu amee ay événements majeurs yu fi xew ñu naan quatre-vingt-quinze euh, quatre-vingt-six morts ci ay événements yoo xam du benn bis ay ati at la ñu tàmm gis deret noonu dañ koy analyser soo jëlee nag les autres facteurs sociaux nga dugal ko ci tel que xale yi xamatuñu fu ñu jëm danoo réer ñëpp a jaaxle fii ñu toll nii la ay consor boroom kër yi xamatuñu fu ñu jëm xale yi dañ leen bàyyi on a lâché les brides avec avec les jeunes ba su ñu xasee ba génn ci mbedd mi lu nekk mën na fi am lu nekk mën na fi xew ndax wut ak wutin bugg am par force soo ko boolee ak li nga xam ni mooy contamination bu jóge ci réseaux sociaux yi problème bi day